Assalamu ñu Nous leen di nuyu di leen ziar di leen bégee bu baax baax ma wax euh, sur la sortie euh, de Tchernobyl, une sortie qui n'a aucun sens amul benn sens Le dul benn le la boo xam supporter Ousmane Sonko donne une occasion pour s'attaquer au président Ousmane Sonko donc une occasion ba sonn mënu ko am léegi mu ba Ousmane Sonko d'innas ben coalition té lolu officiel la de waxagul ne Ousmane Sonko da fay Khalifa Sall ak euh, Karim Wade Seigne Moustapha Sy rek lañ dégg mom mu annoncé ko bopam mais man dégguma Ousmane Sonko annoncé ko dégguma Khalifa Sall annoncé ko dégguma PDS annoncé coalition wax rek ñu ngi waxtaan donc mu

parce que maa njëkk taxaw défendre ko xaw ma lan ak lan patati patata bi ñu ko jàppee demoon naa këram c'est-à-dire wax jooju rek mooy wane ne yow yow nanguloo Ousmane Sonko parce que yaa ngi justifié wu ci biir wax ji kan moo la wax loolu xaar da ngay xaar ne gars yi gars yi wax la loolu dangay xaar gars yi wax la loolu da ngay xaar gars yi ne Thierno Thierno euh, Bocoum nangulut Ousmane Sonko te man xam naa ne yow nanguloo Ousmane Sonko tout le monde le sait ñëpp xam nañ loolu Ousmane Sonko sax moom. Euh, bi mu génnee euh, ñi nga xam ne ñëwoon nañ pour compatir ci jafe-jafe yi mu nekkoon ñoom ñëpp dem nañ dem na leen seeti mais yow bi mu la seetee daf doon wax sax nga commence di ko interrompre di ko dagg gis nga sénégalais dafa doy waar sénégalais moo doy waar gis nga yàlla mooy maye gis nga baaraam yi nii dañoo sutante misaal boobu moom la yàlla joxe ci doomi aadama yi يلا واحنا في القران من انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا جزنا درجة منو نيو تولو في تبون دمي الآخرة تمي درجة دنيو تولو جزنا بني نك سنغال نيو دنيو بغ سنغال ني دبي 1960 بني أمي إندبندنس بلغ لفا نك باخل جار اليون ني نك ديكو خير دنكو ورا جم سو جيسي كأنك أخنا مني إنكار نريتير d'incarner incarner véritable indépendance pour ñu mêmes suñu bop am souveraineté monétaire am souveraineté économique hein, yow ñi lepp ci sénégalais na jeunesse bi jox ko bop bëgg ko gis seen bop ci euh, programme manam yow mo la ëpp bayré jël na troisième ci élection présidentielle yow nga démissionné ci Idrissa Seck ne gisatoo sa bop fofu nonu ñu dem ba mu yàgg 2019 ñëw yow nga bàyyi fa ki nga xamante ni moom mooy haute rupture te kooku euh, maanaam dafa def ay sacrifice pour Sénégal ba ñàkk postam muy Ousmane Sonko indi benn livre boo xamante ni wax dëgg yàlla ku ko lire di nga xam ne lii solution la pour Sénégal jóge ci jafe-jafe yu mu nekkee yow nga démissionné créer sa mouvement ne bàyyi woon nga sa Seck ba pare delluwaat ci moom 2019 bàyyi ki nga xamante ni. yéen ñaar xëy na yéen bokk gis-gis yéen bokk gëm-gëm parce que loolu nga wane muy Ousmane Sonko nga dem àndaat ak Idriss kenn waxula dara léegi nga toog ba mu neex la ngay attaqué Khalifa Sall Karim Wade ak Ousmane Sonko loolu dafa nekkoon yow cor na si sa xol bi nga bëggoon ko génnee à chaque fois bëggoon nga ut foo jaar pour attaquer Ousmane sonk amoo woon occasion waaye fi nga génnee nii nag euh, c'est pas le bon moment wax dëgg yàlla baaxul nit du ñàkk def erreur. l'erreur elle est humaine Ousmane Sonko xagn na day def erreur comme ñep parce que doomi adama la mënoon nga bàyyi nak ba Ousmane Sonko def erreur bu tax nga mën génn critiquer ko nga génn waye def sa conférence de presse te waxo fa dara di attaquer ay mam mam jaara fam ak ku ne xam nga dafa am yo xamanteni da fay nuru soxor li yàlla wax ne fi qulubihim maradun fa zaadahum marada wa lahum azabun alim bima kanu yaksubun yaksibun dafa am Euh, yo xamné dafa rafetout wax né changement nga bëgg yow nga jeune Ousmane Sonko nek jeune ah yow nga né doko nangul quoi di di di wane ay jalousie ay firangé mais loolu sens la am su que yow bëgg nga Sénégal changé mais yow jëlé sa mouvement bi bul xaar Ousmane Sonko nga nangul yalla may Ousmane Sonko nga démal sa Ousmane Sonko nga ak Ousmane Sonko awut Ousmane Sonko parce que tu es encore jeune yow système bi nekkoo ci nek bu tax sax yow Ousmane Sonko di la bagn wala dara di bañ a ak yow xam nga tu as l'avenir devant toi war nga mën dem collaborer ak Ousmane Sonko ngeen and liggéey réew mi su fekke li ngay oote gëm nga ko mais dama japp ne li ngeen di oote da ngeen ko déssé gëm té tollu nañ fo xamanteni yeen yéen Macky Sall am mandat sax mo leen gënal Ousmane Sonko fallu président yeen gëm naa ne ku leen laajoon ndax Macky Sall def 3e mandat forcé ko jalgati constitution bi tok par force mo len gënal Ousmane Sonko tok nek nek président kon ka ñeen bëggu len Sénégal su fekkee intérêt Sénégal mo len taxa a su fekkee né Yalla kenn ki la tànn yëgati ko def ko ci xolu sénégalais yi mais bu len am orgueil bu len orgueilleux dem len ngeen ranger derrière mom ngeen liggéey su ngeen gagner réew mi après ngeen and gouverner. Thierno bokum yow ken xamul ci salté salté wo yow kenn xamul ci ay détournement de deniers publics ah ken xamul ci yenn yi tilim tilim tilim tilim yoy non kon yak Ousmane Sonko war nga mëna and xam nga xol Barthélemy jazz mom dafa noppalu parce que dafa dafa nangul Ousmane Sonko te pourtant bokkuñ parti ñom ñaar mais li yalla may Ousmane Sonko daf ko nangu yalla moy tan njit njit ken duko ko def sa bop yalla moy xol ki neex mu def ci mom lu ko neex Ousmane Sonko

parce que man dama mënul comprendre opposition bi wara nek ben ba paré am ñu ci opposition bi di wone na ñom ils sont dans l'opposition. vous ba paré di opposer opposition bi mais lolu wax deug yalla yeen Macky Sall sax lolu daf contents. hein ah? motax man am ñoo ba tay woluuma len billahi wallahi ay cerno Je Sall mom mom iñanam gi ñep xam ko moom moom dafa soxor moom dafa a ba juge dem même même chose Euh, capitaine Dieye même chose ñu ngi ciy sax bëgg a yóbbaale temps yi Déthié Fall gis ngeen seen yooyu amul benn sens mënu leen fexe ba jaxase Ousmane Sonko ak sénégalais yi ba jël place am Ousmane Sonko pour nga détr détrôner ko léegi léegi léegi nii loolu mënta nekk loolu de ca kanam a kanam mën naa nekk de waaye jamono ji ñu toll mënu leen a fexe ba profité ci benn occasion naan da ngeen koy jéem a diaboliser pour sénégalais yi.

wax deug yalla Thierno Bocoum il m'a déçu wa man xamone nané billahi wallahi wallaahi dina out ben occasion bu mu attaqué Ousmane Sonko man li dama amone pressentiment bi dama ko yag euh sentir waye nak tu deviens plus ridicule quoi da nga yow tu es mort sax politiquement yow ray nga sa bop fu nek ni xam nga man amna yo xamné sax suma ma duma la ko wax nan ay parc télécentre nga yow rek ay mënoo dajale juróomi nit xam nga yalla lum la may da ngay da ngay da ngay contenté wu ci lolu ah yow xëy na ni Ousmane Sonko mel meloko mais nangul ah mais son mère nek na dang koy bañ yow yaay sonu da ngay sonal sa bop rek da ngay sonal sa bop cerno bokum voilà opposition bi ben lañ wara nek suñ fi waree jëlé Macky Sall té sa wax ji ni nga wax ni manul yak dara ci coalition bi nga xamné ñu ngi koy préparer ci digënté Khalifa Sall. ak Karim Wade ak parti Pastef sëñ Moustapha Sy sax moom wax na ne moom pare na pour bokk ci gëw ma ne yow Thierno Bocoum man nga influencer sénégalais yi ba ñu weddi Ousmane Sonko jàpp ne Ousmane Sonko traiteur la wala dara Ousmane Sonko deful la dara fiiraange moo la jàpp rek waaw nit nag bu ko yàlla mayee te nanguloo ko ci nii rek ngay nekk dangay ngay gën a sonn gën a dellu ginnaaw moom muy gën a avancer waaw te man nag du bett. Euh, bés bu la Macky Sall oowee sax nga dem ci mom wa parce que ku bàyyi Idrissa Seck né da ngay créer ce mouvement parce que ande tok Idrissa Seck gis-gis ah tok ba 2019 nga dem ànd ak Idrissa Seck ci coalition bi Idrissa Seck boobu non à l'issue de l'élection présidentielle mu dem ànd ak Macky Sall té néna mu ngi doon négocier ak Macky Sall pendant 15 mois kon lool moy wane né Idrissa Seck traître la té yow ba légui yaa ngi nekk euh, ak ak ñoom ci seen idéologie parce que mën nañ la sax utiliser na la fexeel ba guen attaquer Ousmane Sonko pour gëmloo Sénégalais yi né dal Ousmane Sonko dal du dara quoi comme complot bu nit ñëpp di nekké rek wa opposition bi sax mën nañ leen utiliser pour ñu diviser wu di dal ci kaw Ousmane Sonko parce que Macky Sall il est trop fort hein Idriss Seck tamit instant bi day jappalé Macky Sall ci lolu <laughs> voilà donc dal mbir mi mu ngi non, Ousmane Sonko dal mënu leen fexe ba sénégalais yi weddi ko da ngeen di sonal seen bopp bu eboon nag ngeen noppalu def ko ni ko yàlla def mu noppal leen su ngeen ko defut ni ko yàlla def nag da leen di sonal rek kon gars yi bu leen fàttee dem bindu ji ci liste électorale yi pour mën a am seen ay carte électeur waaw yeen ñi nga xamante ni ay primo votant ngeen je le répète encore fexe leen la def le tout am seen carte d'identité am seen carte électeur dem ut seen certificat de domicile ci chef de quartier ba jël ko dem mairie ut seen certificat de euh, résidence dem ci commission yi bindu fa yéen ñi nga xamante ne defal ne peut pas voter timide même chose ngeen di def outil certificat de résidence après yóbbu une photocopie carte d'identité dem ci commission yi ngeen bindee fa ñu waajal élection locale yi waajal élection législative yi gagné Macky Sall assemblée nationale gagné ko ci agglomération yi nekk Sénégal yu bëri yu gën a mag ba pare nag 2024 mu abal ñu tànn candidat yam ñu duma ko duma yu métti moog waa Bennoo Bokk Yaakaar su ko defee ñu jël réew mi ci seen ay loxo jox ko ñeneen ñoo xamante ni am nañ ci ñoom yaakaar ku ci mel ni président Ousmane Sonko mu doxal ak programme am ànd ak équipe am te ñanal ko yàlla nag yàlla sàmm ko làq ko fu yàq agul musal ko ci noon yi asalaamaaleykum wa rahmatullah